Nous avons fait continuer en fait de premier ministre. est-ce que ça arrange l'arrangement premier ministre. ah oui. Euh, euh, il faut nekk <laughs> Sénégal il faut pouvoir. ah am décret ñoom signature lañu faale di Sénégal. <laughs> non c'est vrai. parce que Amadou Ba moom defe naa ne moom bu nekku ci les premiers ministres moom dina am lu bëri lu wàññeeku ci. mais bien sûr bien ah, sûr Aïssatou bien sûr moo tax. Euh, malheureusement Aïssatou ce sont les mêmes pratiques qui reviennent. rupture bi ñuy wax euh, du gaaw. ce n'est pas pour demain la rupture voilà ce n'est pas pour demain parce que boo on tey normalement ñu ngi une ay élection mais administration dafa fonctionner liggéey dafa war mais au niveau des ministères marché yi engagement yi tout est au ralenti te man dama jàpp l'État doit être la continuité à tous les niveaux institution du ministère du dox ñu war signer marché signer marché yi ñu signer contrat signer contrat mais te da nga naan euh, prochain régime bu fi donc dafa mel ni finalement <laughs> dañuy liggéey en fonction des humeurs quoi voilà léegi nga ne xëy na euh, beneen président bi fi ñëwee est-ce que du changer lii est-ce que du lii te wax dëgg yàlla mais mais c'est ça ah, te wax dëgg yàlla man li may li ma bëgg daal li may rêver daal sama souhait ah. mooy gis nga ni président Macky Sall ñëwee mhm. fekk fi ay projet président wadd mu eggale ko bokk na ci ay rapport bi nga xam ne ni mooy ay AIBD nga xam ne président Wade moo ko commencé woon mhm. te président Macky Sall eggale ko mhm. man aussi li ma gëm mooy li ma souhaité mooy couverture maladie universelle bi mhm. nga xamné euh jot nañ ko fi tambalé mhm. donté amna ay manquements yu dul jeex nak mhm, ay bor yu dul jeex mais gis nga prochain président bi fi ñew mo xam mu nek opposition mo xam mu nek pouvoir mais nañu étudier waat lolu xolaat les manquements xolaat rëq-rëq yi dañ lañ koy défaré jubbanti ko ñongal ko continuer waye ngi laay wara sur buñ bu fi changer appellation ah wala di jéem a yàq loolu di jéem a indi say création bop su ko defee réew mi di gën a tàgga tembe ah moom ñun de ñun de on est mal barré alors Dime euh, tàggatoo suñu émission jeex na 30 minutes top chrono. mais neex na 30 ah, minutes 30 minutes yi neex na saf saf 30 minutes yi neex na saf na ah, liñ ah. ci liñ ci war a wax bari na mhm. euh, Aïssatou tey j'espère que ni liñ ci wax euh, amal na jariñ internet yi vraiment mhm. di jox rendez-vous rek prochainement mhm. ñu ngi doon bàyyi xel ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp et puis tamit la ma comment la ma tàmbale woon rek laay tëjee muy octobre rose bi Ah, Surtout, mhm. parce que la important. santé coûte mmh. très cher au Sénégal. Mmh. Et puis, d'interpeller mmh. euh, les femmes, en l'occurrence, parce que les femmes et les hommes sont santé, structure de santé. Mhm. Mais nous les disons, nous gagnons euh, donte ñu ngi def sen liguey mhm. parce que dañuy wax ne ben pomme terre bu nëpp mo moo moo mais Euh, soo demee ci structure de santé yi da nga ci gis ay nit yu baax mm-hmm. di di def seen liggéey ak conscience boo xam ne nii mm-hmm. yàlla xam na ni moyen sax matewu ko mm-hmm. mais ca wet ga itam am na ñoo xam ne nii te ñoo tax ñuy wax nu ñu gën a ubbi seen xol yi gën yaatal seen xol yi te xam ne nit su amoon lu ko gënal su amoon lu ko neex du xëy suba ni la faj ma donc nañu nañu nañu nañu gën a laabir ci patient yi gën leen a jàppale gën leen a dimbale ngi laay war a suuri voilà alors euh, Euh, donc euh, gis nga man mi def naa sama sama rose. Euh, wax dëgg yàlla dama ko fàtte woon na yaa ma ko kiiwaale moo tax ma pëttaxul waale. xam nga gis nga yàllaa ma bëgg rek ma pëttaxul waale. gis nga man itam yaa ngi ci biir. maa ngi ci biir waaw yaa ngi ci biir tu as vu. waaw lii moom vraiment moo tax tey moom xam naa dama doon sumé ko après samay xaaral ma continuer waale. ak sama rose rek voilà yaa ngi ci biir. l'occasion fee la raroon. donc dimee saa yoo fi ñëwee bu gàttee neex. bu guddee neex bu ngeen ko ñëw bu nay sama bàjj toog def ci balcon bi seetaan donc ñun ay mag lan donc fi mu ne nii moom ñoo commencé di ma ñoo bokk euh, euh, euh, fi ñu nekk rek mooy ca congélateur ba waaw ah, ñu nekk duñu frigo ñu congélateur xam nga <laughs> mais congélateur mais congélateur a xool nga mel ni nga <laughs> ne yaa sa nga yor doo fi ñëwee noonu kese da ngay ñëw am say say ay bag ñooy defar ay bagages ak ñoom seen donc ñu nekk si ginnaaw tamit ñu leen di nuyu bu baax a baax waaw vraiment macha allah ñu ngi leen nuyu baax di mm-hmm. sama xarit boobu imam Dramé tey moo ñu doon compagnie mm-hmm. moom imam sama xarit boo xam ne mi imam bu bu def. imaam mhm. Dramé eh, borom moo ah borom Pastef ñu koy nuyu ah, moom sama xarit la boo xam ne mhm. affaire journaliste ak euh, politicien boolewuñu mhm, donc dañu bu ñu saa ñëwee Dakar mhm. dina ñëw fii ñu toog euh, tëju man ak moom waxtaan ay euh, depuis soo mi ngi fi waaw ma koy nuyu mu nit ku baax nit ku yàlla baaxal xam nga ay xarit rek laa fa am waaw loolu la loolu la loolu la mooy Sénégal mais ku nekk rek na nga xam li sa wareef ci réew mi nga def ko parce que journaliste ak loo xaritoog homme politique aussi xarito bi am na fu mu war a yem

xam nañu mhm. euh, euh, lan mooy lan mooy yëf yi te mhm. comme ne bu ñu ko xamulee tamit ñun ñi nga mhm. xam ne euh, on ne la fait pas xam nañu fi ñu taxawee kon ñuy gërëm ñëpp di leen sant ne nay demee pas de rendez-vous pas de kii donc bëxañet bërët rek <laughs> jàppale ko noonu bëxañet bërët rek ñu génn si congélateur man daal bi nga ma gisee xam ne dimee fi nekk wala kenn jóg waaw samedi yi moom leer na incha allah ci kàttanu yàlla yaa ngi ci frigo bi rek maa daal ci congélateur ñëwee ca dinaa doo kër collègue bi di xase ma ne ko bu yaboo waaye bu du du ndey di ma ñëwee ma am ko ma wéttalu moom génn na génn na moom génn ma te te nee na no fight no fight <laughs> yi ah ADFN woo comme ma ko waxee rek euh, duñ joxe rendez-vous ñun daal yi jékki na bëkk ña dee leen xool affiche yi daal ñu def suñu affiche ñoo toog génn waxante ak yéen dawaat duggaat ci congélateur bi jàpp suñu sago lu ñaam dara du xew